Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des merci de vous abonner, merci également de baisser c'est commentaires, un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager les informations yi mbokk sénégalais fépp foo leen nekk 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngay wër ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam ne également erreur judiciaire ak yi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñuy dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi Tayerenu, on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu gaay dañuy ñëw ont waxtaanee un nga message émouvant bi nga qui dit di Moussa Niakhaté ak également qui euh, di euh, Noah Fadiga def nañ ko mu nekk première sortie gannaaw bi nga xam convoqué nañ leen ak aussi qui di donc euh, Dan mi finalement opté pour jouer pour la Suisse et également Mory Diaw mais d'abord les li nga donc coupe d'Europe bi demi-finale bi France moo di Pologne 95 à 54 les coéquipiers de Rudy Gobert donc dem nañ finale di xaar demi-finale bi diggante Allemagne ak Espagne pour xam ñan lañ ci wara pour dem finale donc jouer ak ñom finale coupe d'Europe aussi ki nga également moy Kaba Jawara prolongé du côté du Sili national donc mom lañ tabat mu nek sélectionneur foofu ba 2024 le Sili national donc qui veut s'inscrire dans la continuité comme niñ ko Aliou Cissé ak équipe nationale du Sénégal ça montre également que le Sénégal est un grand exemple mais aussi li nga xam nak nag jëm ci Équateur finalement nak way wa UEFA Wa FIFA plutôt jéggalu donc réuni war nañ donc dàq li nga xam moy recours bi Chili ak également yi yeneen dëkk yi defoon ci li nga xam ne moy kaou euh, donc Équateur bi ñu ñëwoon seen benn ci joueur yi dafa euh, fruit, fraude ñoom nag U FIFA dakh nañ lool donc ce qui veut dire que Équateur moy jouer coupe du monde bi kabinek de nak dama ci ñew gis ngeen ko depuis demb ñu ngi ciy wax muy Patrice Eva parce qu'il y' a beaucoup de choses à dire il y' a des noms dits yo xamné gaay dama lañ ko jox en exclusivité par rapport ak ñewu Patrice Eva lan motax Patrice Eva ñewul euh, Sénégal lool nak demain inchallah à la première heure dans un jox détail mais aussi aussi Boubacar Camara encore ah moom mooy toujours qui comme on dit ah, donc mom moy nek dernier plan moy nek plan de secours adina Rabiot dafa blessé ba léegi wéragul donc finalement Deschamps woo pour mu ñëw euh, pallier absence ou Rabiot ki nga également nak mooy euh, donc le frère de Paul Pogba bi nga xam ne moom la ñu wax ne guerre moom nak euh, demain dafa dem jàkkaarloog juge bi pour ñu daal di koy di déférer peut-être wala bokk en hein, xool situation parce que jàpp nañ ne li ñu koy toppee moom seetu ci benn yoon Aminata Diallo bi nga aussi moom la ñu wax ne moom moo orchestré woon li nga xam agression Khaira Amraoui yi ngeen di ay Xayra Amraoui yi moom ngeen gis ci finalement nakate li gars yi di wax loolu nakate am selon les dernières informations maintenant comme on dit euh, dañuy bàyyi nag yoon gën a def kiiwam mais moom daal dafa mel ne euh, lii di procureur bi dafa wax ne daal nañ ko daal di téwagum lii le di meilleur passeur par saison depuis 20 ans gis actuellement donc Kevin De Bruyne Thomas Müller ñom ñoo nekk ci kaw par rapport ak année yi ñu donc Kevin De Bruyne jël deux fois Müller bi passé Lionel Messi également donc nekk lo xam continuité la Li nak Hollande hein. les Néerlandais futur adversaire du Sénégal hein, au Qatar premier match Sénégal Hollande y a na Sénégal d'or, Hollande ñom nak li moy cette équipe gis ngeen ki di Memphis Depay mi ngi ci de Ligt ñeu dellu si na donc par rapport ak liste bi ñu mel Yago Aspas aussi nekk jour bo xamné au niveau de la Roja ñep jàppoon nañ waron na ñëw parce que il fait une un début de saison exceptionnel boxe ci meilleur buteur yi mais mom euh, finalement ki nga xam moy Luis Enrique wowuko ben direction la nationale manshaft ñaan yi ngeen gis ni donc Jamal Musiala ak Leroy Sané ñoom national manshaft woon na mais aussi euh, demain match bi nga xam ne Bundesliga ñom dañuy jouer ñom ñana nar a accompagner ki di Sadio Sadio Kaiser magnifique Mané Jamal Musiala mi nga xam ne gars yi particularité moy mënoon na jouer également pour wa Angleterre gis ngeen ko ci photo bi mom ak Jude Bellingham la T'as une petite catégorie donc Angleterre mais finalement il a opté pour il a opté pour la national mannschaft de Jude Bellingham mom Faghan fa nga Angleterre les Three Lions du côté également de l'Amérique du Sud Uruguay génn également Senlis, liste li yeb na préparation coupe du monde bi également Luis Suarez mi également ah, Kili, Darwin Nunez entre autres ñom ñi ngi ci et aussi Arojo, le défenseur Grana par rapport à cette équipe le Canada aussi gis Alfonso, ko toujours présent ah, le joueur ah, phare de cette équipe canadienne également aussi hein attaquant, attaquants yi ngeen gis ni aussi hein donc ils ont une équipe bo xamné ils sont ils sont à voilà war nañ len bàyyi bàyyi xel bu baax notamment avec Jonathan David Qui ngeen gis ni également D'autres len ko présenter mooy Herrera Herrera dañu wax né il sera indisponible pour jouer contre Rayo Vallecano bu partie 6 finalement il devra jouer demain son premier match en tant que titulaire probablement avec l'Atletico Bilbao Qui nak nga xamné nak nag donc mooy donc euh, Campos Luis Campos mom néna par rapport ak li nga xamné moy mercato bi Paris Saint-Germain def néna mom moom comme puzzle bu matul n'est pas satisfait moom it ñoo wax ne Chelsea la ko bëggoon a jënd mais moom nee actuellement daal mi ngi wéyal bi et que bu fekkee ne kii di Sergio Ramos continuer cette dynamique bi nii da ko bëgg prolonger nee aussi mon laaj na na Messi euh, dafa bëgg a euh, desaat Paris Saint-Germain parce que dafa bëgg prolonger Messi mais waxul final finalement lañ mujjee mais en tout cas jàppale ni ñaar ñi boo moytuwul dañuy prolonger avec le Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye mon dem na signé également du côté donc de Roumanie donc ca CFR Cluj mais nga xam ne jouer donc Europa League bi Ibrahim Mbaye mais nga xam ne dafa résilier contrat avec Bologne euh, pour mën am temps de jeu dem du côté donc de la Roumanie je souhaite bonne chance Ibrahim hein, Ibrahima Mbaye longtemps décrié ci Coupe d'Afrique bi ñu génn gars yi doon Nicolas Jackson N'a ah, ndax naan waaw ñi ma doon wax non est-ce que sénégalais et tout ñu ngeen image yi daal doon wax mi ngi nii ba mu Casa Sport la gis ko Nicolas Jackson c'est un joueur boo xam il est passé par le Casa Sport c'est un joueur boo xam aussi cadre la woon ci Casa Sport ngeen gis ko ci photo bi di ngeen ci également yeneen joueurs yoo xam ne euh, ñi ngi ñii ci Casa Sport ba léegi ah donc ñenn ñi nekkatuñ fa fois. Ah, vous allez également reconnaître l'ancien gardien de but de Diambar donc et aussi ancien international sénégalais Nicolas Jackson mo nek ni ni ci kanam ngeen koy seen donc mom aussi c'est une euh, bonne satisfaction pour l'équipe nationale du Sénégal euh, Dan Ndoye ñi ko doon laajte naan Dan Ndoye dafa war équipe nationale du Sénégal mauvaise nouvelle pour vous gars yi dafa tànn dem jouer pour équipe nationale Suisse mom avec un autre Sénégalais Djibril Sow Dan Ndoye donc convoqué nañ ko ci équipe A bu Suisse ngeen gis ko le joueur de balle mi ngi nii a ah, Dan Ndoye ak Djibril Sow donc Dan Ndoye moo ci deuxième rangée bi di ngeen ko gis Djibril Sow mo nek ci troisième rangée bi après juste Erdan Shakiri donc Djibril Sow mi également d'origine sénégalaise la mom ak Dan Ndoye العيش النريم surtout Dandoy parce que kii mom joué na bu Yag mais Dandoy mom fini équipe nationale A la donc Sénégal mënatu ko convoqué pour l'instant sauf bu wul et autres Mory Diaw mi ngi def na déclaration très heureux et fier d'être sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale du Sénégal man je le dis encore man Mory Diaw je dis encore actuellement c'est le meilleur gardien du Sénégal parce que au niveau de Ligue 1 mi ngi def ay preuve mais aussi Noah Fadiga Noah Fadiga après sa première convocation il na wax def déclaration il est content content na na rêve la buy devenir réalité mom mi nga xamné na gars il vient euh, donc marquer la continuité avec l'héritage que son père a laissé pour lui mom nee na fierté bu mag la lay annoncé gars yi muy nga xamné moy euh, premier plutôt convocation et que né amul sax euh, bat gi amul cadeau yo xamné mën nako tek pour wax exactement lan lay ressentir et gis ngeen ki photo bi dé wane carrément que lui son cœur a toujours vibré pour le Sénégal ngeen gisoo ak yayam ki mo nekkoon jabaru ki di Khalilou euh, Fadiga donc mu soloon mayo boss ki nga xamné nak moy gis ngeen ko ah, donc Bolton ak ki di Noah Fadiga lii nag Sénégal won marche match Sénégal won donc le fils de Khalilou Fadiga mais également qui dit, donc Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté tey dafa def vidéo bu exceptionnel di ngeen ko mais par souci de droit d'auteur dama dindi son bi mais dinaa leen ko commenter Moussa Niakhaté bi nga xam également moom nee na euh, mbégte bi muy gën a yëg jour bi nga xam ne la nar a njëkk équipe nationale du Sénégal gis ngeen lii maillot Sénégal la mu fóon ko Moussa Niakhaté bi nga xam fille la màggee fii la yaroo ah, momit également on a lii satisfaction la ñëw de comme nous représenter, nation am sol maillot bi nga xam le maillot floqué avec l'étoile sur le maillot l'étoile du drapeau du Sénégal mais également l'étoile ah, de notre sacre continental Moussa Niakhaté bi nga xam ne wax rek un peuple un but une fois des vidéo bou exceptionnel bou stratosphérique gars yi ngeen gisoo image yi papa am ak yayam, gis ngeen ñu nekk nii muy wane image pour man c'est très émouvant par rapport ak li nga xam ne mooy donc avec le Sénégal li avec le Sénégal ngeen gis ko di ngeen gis également ño xamné di ngeen lay xàmme ndeysaan ah di gor gorlu gis ngeen len ñi ngi ni ah ñoom seen seen donc kii di Moussa Niakhaté qui vient rejoindre l'équipe nationale du Sénégal il fait la fierté de l'équipe nationale du Sénégal ñu ñu lañ soxla soxla wuñ di daw ci ginaaw kenn ku Sénégal soxla yow ya ñewul sa bop woné na da nga bëgg Sénégal mom ba France waaj convoqué mom dafa bañ ne réunion Sénégal donc respect gars yi nag joxe leen sa xalaat par rapport ñi nga xam nag mooy les déclarations de Moussa Niakhaté dandooy mi dem ci Suisse ak également Noah Fadiga ak Mori Diaw jaa ngeen jëf.